assalaamu aleykum tabaarakallaahu ñi ngi nuyu mbokk yu teew ci bërëb bi yépp di leen ziyaara te di leen ñaan ngeen nangul nu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 taqullaha wabtaqu ilayhi wasila su ko defee kenn ku nekk rekk fexe jokk ci koo xam ni dina la àggale ci yàlla ndax yoon bi jëm ci yàlla day yoon bu bare ay obstacle moo tax la dimbali ba nga àgg ci moom mooy nga fexe rekk ànd ku miin yoon ba lu am solo la yàlla dogal ci dogalam yu màgg ya ñu bokk ci tariqa ya ànd ak sang bu màgg bi di Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani di sàkku ci moom barke di sàkku ci moom leer di sàkku ci moom yëwan biy dox suñu digganteeg yàlla mu yëwanal ko waaye nag loolu day waral yàlla mi nga xam ni luy exister ci loxoom lay jaare waaye yàlla mi nga xam ni cër bu nit di détenir it ci loxoom lay jaare ndax définition bi ñu am ci nguur yépp li muy yaatu yaatu yépp benn nguur dongay exister muy tabaaraka allazi bi yadihi l mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir su ko defee ci nguuram googu moom yàlla lu ni tuddee ti daraja walla ñu di ko tuddee nguur lay barkeel loolu ci nguur yàlla lay jóge moo tax mu ni allahumma malika al mulki tuati mulka man tashaau wa tanziu mulka mi man tashaau wa tuizzu man tashaau wa tudillu man tashaa'u bi yadika alxayr innaka ala kulli shay'in qadir njàngat boobu day dellu si ci tabaraka alladi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir looloo tax ñu ni lu la yàlla mën a dénk ci mondu shahada dina dem ba benn jour loolu effacé ku ba jeex tàkk parce que réalité bi des du benn réalité lu dul réalité yàlla kullu shay'in xaalikun ila wajha benn réalité mooy des mooy réalité yàlla lu dul réalité yàlla day disparaître ndax kullu man alayha fan kon njàngat bu am solo la njàngat bu am solo la waaye li njàngat bi di am am solo yépp la yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy liy dalal xel yi mooy liy dalal xelu ñi nga xam ni tegu nañu ci yoonu njub mooy la mu wax ni walla al axiratu xayrun min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda réalité boobu te yàlla xamal ci yonent bi ni ko sa vie future moo gën sa vie présente bi waaye réalité it bi yàlla xamale yonent bi yonent bi yëgse ni bés bu jàkkaarloo kanamu boroomam dina bokk ci ñuy am mbégte jullit bu nekk loolu la war a dalalee xelam pour fexe defar digganteem ak yàlla looloo tax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani bi mu ñu indee ci biir xaqiqatu tariqa bi nga xam ni soo ko jàngatee ci point bu njëkk bi ba point bu mujj bi lépp yar la muy tariqa tijaniya cheikh fexe na ba yar ñu ci yar gu tolloog lu ci ne ci suñu dund rekk ñu jox ko gëdd ndax gis nga li yàlla di insister ci diggante bind bi mu bind nit ak jinne te wax ni dara waralul mbind ga lu dul ngir ñu di ko jaamu li ci yàlla di insister yépp bu fekkente ni organe yàlla yàlla dajale ci sa yaram tax nga taxaw ñu ni être humain nga boo ca négligé benn rek pour nga jaamu yàlla dana jafe organe yi constitué sa yaram ba nga taxaw ñu ni kii taxaw être humain la boo ci négligé benn pour nga jaamu yàlla dana jafe ndax boo seetloo ni yàlla procédé ak doomu aadama da ngay yëg ni amul lu constituer organisme bi te yàlla fàtte ko moo tax bu ñu demee ba ci njàpp na ngay seetloo ni nit ki di raxase ay loxoom ni nit ki di sëlmoo ni nit ki di dugalee ndox mi ci gémmiñam nam koy dugalee ca bakkanam ba na muy masaar boppam nopp ya ba ba muy dem ca tànk ya amul bu yàlla fàtte bu yàlla fàtte te xaqiqa boobu di dellusi ci wàllu laabal organe ya bi ñuy jaare pour laabal organe bu ñu demee ci sangu farata nga gis itam xaqiqa bi feeñ ci nañuy jaare pour laabal yaram wa yépp te benn organe duñ ko fàtte waaye it bu nu duggee ci xaqiiqa ba gis ni lab bi balaa mën a fés dëgg-dëgg ci kanam mu feeñoon ci biir ba noppi te mooy fexe laabal xol ba ndax yàlla dafa ni ki gën ci yéen mooy ki ma gën a ragal waaye aussi it ëllëg yowmal qiyaam su may seetlu ki may seetlu mooy boroom xol bi nga xam ni xolam sell na ndax bu sa xol sellee rek loo jëfati yàlla nangu ko looloo tax bu nu jàngatee réalité boobu am ci ba noppi mu des benn njàngat njàngat bi mooy taalibe Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif bi jël bi mu jël werd bi bi mu jëlee werd bi mu des dellu ci kurusam di zikr ak li ñu wax ci condition tariqa bi yépp ngëneel yi ci nekk nga xam ni buñ ko doon lim la ca waa ahlu shahada xam rek lañuy wax waaye fekk am na yoo xam ni ci domaine ray bi lay dellu waaye teewul aussi façon bi ñu wax ni noon la taalibe Mawlaay chamme Ahmad Tijani bi war a comporte ci diggante yére yi sol fexe ba sell tege fenc ak itam na muy demee ci malaanu wadifa fexe ba sell tege feeñ ca rawatina nag sellte bi ëpp te mooy sellte bi tax muy mën a ak boroomam ci wàllu zikr zikr salaatul fatiha muy sellte biy des ci xol ak sellte biy des ci ruux yooyu yëpp bu dikkee teewul am na beneen bu essentiel beneen bu essentiel bi mooy kurus gi kurus ga muy utiliser di def laazimam kurus ga muy utiliser di def wazifaam kurus ga muy utiliser di def xadaratul jumaa kurus googu lu jar di fonk la ndax gis nga kurus gi taalibe Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani bi di téye mën na nekk kurus ga mu joxoon muqaddam bi mu jox ko ca wérd wala kurus ga moo utiliser pour def ay awraadam mais gis nga kurus googu lu tax jarul négligé mooy dina dem moom kurus gi ba tollu foo xam ni fonk bi nga war fonk kaamilu alqur'aan fonk bi nga war a fonk kaamilu alqur'aan te yàlla ni bu ko kenn laal lu dul danga bokk ci ñu làb ba noppi gis nga kurus gi dina toll foo xam ni gëdd gi nga jox kaamilu alqur'aan gëdd gu ni mel nga war a jox kurus gi ngay fa ndax luy utiliser di ci wut yàlla waaye aussi looy utiliser di ci wut lumière yonent bi waaye looy utiliser pour jege Mawlaay Cheikh de Tijani bu sellul rek bu sellul rekk day doon barrage sa diggante ak mondo xayb bu sellul rek day doon barrage sa diggante ak mondo xayb te yàlla teel na mettre en garde ñiy jël le livre sacré di alquran mu wax leen ni buñ ko laal lu dul ñu bokk ci ñi nga xam ni sell nañu ba noppi muy contexte yi aju ci nañuy ñuy téye téere alquran mais talibé Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif bi war na fexe ba même contexte bi mu delloosi ko ci kurus gëmoo wér de lu am solo la parce que dès l'instant que ñu accepté la ci biir tariqa bi kurus gi ngay yore di jàng salaatul fatiha dafay mujj constituer ñaar ci yow benn bi mooy day constituer sa liaison sa diggante ak sa cheikhul murabbi beneen bi aussi day constituer sa liaison sa diggante ak réalité lumière u tariqa bi te yàlla dogal na bu fekkente ni dangay xalaat sa digganteek sa sëriñ doo ci sàkku mukk lu ñaaw waaye doo ci bëgg mukk aussi lu sellul sa diggante ak leeru tariqa bi yëg nga ni boo sellul li ngay utiliser comme arme sellul fu yu daat yi mënunu dellu si di dal sa kaw ndax fu yu daat yi du nu dal ci lu sellul kon bu booba fonk sa kurus dafay doon priorité fonk sa kurus ci taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif bi dafay mujj doon kon sa priorité te pour mu doon nag loo fonk dangay fexe njàngat xaqiqa yi nga xam ni ci la yore kurus parce que dëgg la boo demee ci ñenn sunni yin yi dañ lay gëmloo rekk ni kurus lu ñuy yore la pour compter ay perles dañ lay gëmloo ni kurus lu ñuy yore la pour compter ay perles maanaa xam nombre bi ngay def ñaata la waaye bu dee da nga màndi ci leeru tariqa tijaniya di nga dem ba yëg ni kurus gi ngay yore dina dépasser rek ni da nga koy yore pour compter ay perles dafay dépasser domaine boobu parce que dafay mujj dem ba doon sa arme sa arme mystique te li yàlla wax ni aduuni astajib lakum muy laaj leen ma ma jox leen walla ngeen ñaan ma ma may leen dangay dem ba kurus gi day doon arme bi nga xam ni moom ngay utilise soo bëggee laaj yàlla nga jàng ca lang cay jàng laaj mu jox la waaye day mujj doon arme bi nga xam ni moom ngay utilise soo bëggee ñaan yàlla nga ñaan ca lang cay ñaan yàlla jox la loolu nag pour mu am faw nga sàmm kurus ga looloo tax mag ñi fonkoon seen kurus looloo tax mag ñi fonkoon seen kurus ndax sàmm biñ ko daan sàmm moo tax boo seetloo réalité boobu nekk ci taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif bi su fonkee kurusam mais gis nga moo demoon ba mag ñi bis bu ñu daan wax ni nangam du am dañ naan la bu amee ma dagg sama kurus ci tariqa bi parce que yëg nañ ni duñu dagg seen kurus ndax lieson bi dox seen diggante ak Mawlaay Cheikh de Tijani préserver nañu liaison ba ba lu sellul du ci dugg te fonk sa kurus daf ciy doon priorité waaye fonk bi faw nga def ko ci ay point point bu njëkk bi mooy ki nga jox sa kurus ki nga jox sa kurus te mu doy la mu jox la ca wérd walla mu defal la ca yeesal fexeel ba sàmm kurus googu ba rekk loxo boo gis rekk teg ca sa kurus ndax am na ñu mel noonu am na ñu mel noonu am na ñoo xam ni dañoo yor seen kurus rek waaye ku ñu dajeeg ci mbedd muy dox rek ñu jox la kurus ga ñaanal nga ñaan ñu dajete keneen joxati kurus ga ñaanal mu ñaan te taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani du yore kurusam noonu kurus boo koy dénkaane danga koy dénk ku la doy te ku la doy nag mooy kii la gën a jege yàlla waaye mooy ki mën a jaarale ci yoon ba mu lay àggale ci yàlla waaye mooy ku la mën a boole ak leeru yonent bi waaye mooy aussi ku la mën a synchroniser ak lumière Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ñii ni mu ràbbi ñii ni cheyqu tarbiya la waaye bu ci ne fonk kurus gi day doon priorité moo tax boo ci jëlee wérd ba noppi rekk sàmmal ndax mooy sa arme mystique fuyudaat yi ciy wàcc ci moment bi ngay zikr yépp kurus ga def cay jëlaale wàllam ci perle yi ngay jàng te bu boobaa doo dellu di considérer kurus gi comme rek benn euh, fil bu am ay perle bu ñuy compter dafay dépasser loolu point bu njëkk bi ki jël wérd ba noppi fonk kurusam bi ci des mooy kurus gi aussi bu mu constituer loo xam ni danga ko utiliser uniquement rek pour décorer sa ay loxo maanaam li ñenn ñi di def li ñenn ñi di def maanaam génn bëgg ñu ni Tijaan la rek nga laxas kurus gi ci loxo gi te doo ci wér di dara bu boobaa du am njëriñ njëriñ bi mooy fexe ba kurus gi ngay décorer sa loxo fekk décorer nga ko lu ko ëpp ak say baaraam ci wàllu zikr ci wàllu zikr kurus gi bu mu nekk lu ñuy décorer loxo bi bu mu nekk rek lu ñuy décorer néeg bi na nekk lu ñuy zikare ndax tariqa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani les l'instant que ñu accepté jëmm ji ni jël na wérd li ci des mooy mu pratiquer moo tax ki dul pratiquer bokkul ki jël wérd ba noppi aj ko mais bokkagul parce que pratiquer gul te ku pratiquer gul mën a ko revendiquer sa appartenance ci biir tariqa ya moo tax kurus gi bu mu serviir de décor na nekk looy utiliser pour zikr waaye fexe aussi ba booy utiliser kurus gi nga sàmmoonteeg say loxo ba jamono jooju fekk sa loxo yi set na set nag ci ñaari fànn mooy benn set fekk jamono jooju nit ki mi ngi ànd ak njàpp beneen set bi mooy fekk mu set fekk jamono jooju nit ki ànd na njàpp ba pare waaye amul ci loxoom dara loo xam ni sobe lay doon ba bu téewee per bi sobe bi mu transféré ko ci perle bi moo tax taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani kurusam dafa war a set lu am solo la léegi set boobu bu dikkee nag li ci des mooy place bi ngay garder kurus gi taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani dafa war a éviter di teg kurusam foo xam ni xale mën nekk ko jog gi ndax am na ñoo xam ni dangay gis ñu jël seen kurus rek daal di teg ca diggu néeg ba léeg-léeg nit dugg sax accidentellement accidentellement gisul kurus ga mu dëggaate ko ñu soog koy yëkkati loolu ëpp na ci taalibe Mawlana Cheikh Ahmad Tijani mu di ko def kurus danga koy teg foo xam ni xale yi duñu duñu ko jël di ko foowe waaye aussi da ngay fexe ba teg ko foo xam ni boo doon denc alxuraan fi ngay teg alxuraan parce que alxuraan ñëpp xam nañ ni kenn du ko jël ba noppi di ko denc fu setul walla di ko teg fu sellul moo tax taalibe bi war na fexe ba kurusam bu ci zikkaree ba pare bu koy garde naka teg ci sijaada bu set boo xam ni kenn du ko joggi walla mu teg ko ci tiroir bu set walla mu wékk ko ci bërëb bu set lu essentiel la waaye léeg nga gis koo xam ni ndeysaan dafay yor kurusam rekk bu jotee mbaaru xar ya teg fa bu jotee place bu setul wékk ka weñ yi nekk ci kaw kurus gi di ci baw te loolu ëpp naa def ci taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani bu bëgg garder lieson mystique bi mu am digganteem ak wasilaam ndax boo seetloo magu tariqa bi fonk seen kurus fonk seen kurus moo tax moo tax nga gis salaatul fatiha yin ciy jàng daan nañu dem ba buñ leen tawatee biir buy metti dañuy jël kurus gi rekk xooj ko ci kaasu ndox génne jox ko ko mu naan biir ba sedd xam nga lu ko indi seen kurus dafa set ba noppi moo tax bu ñu dugalee cat bi ca kaasu ndox dunu transmettre ci biir kaas bi benn microbe su ko defee fuyu daat yi ci doon wàcc ci moment biñ doon zikr salaatul fatiha fuyu daat yooyu mooy dellu ca ndox ma kontak boobu créer benn apaisement apaisement boobu nga xam ni dina am ci diggante ndox mi ak lumière bi buñ ko transféré ci biir buy metti biir bi sedd biir bi sedd ndax yàlla mooy wéral waaye li yàlla di wéral yépp mi ngi koy jaare ci leeru yonent bi li yàlla di wéral yépp mi ngi koy jaare ci leeru yonent bi loolu nag bu sa kurus setul doo ko mën a defal ku biiram di metti te mag ñi moo daan seen ngànnaay ñépp daan nañu yëg ci moom ni lu nit tawat rekk ñu xooj kurus ga jox la nga naan nga gis loolu daal di sedd te loolu ku sàmmul kurusam du ko mën bi ci des mooy kurus yooyu ñuy sàmm kurus yooyu ñuy sàmm bu ñu ko delloosee ci côté mystique dina dem ba di nga gis taalibe Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani bu entamé zikram par exemple taalibe Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani bu waroon zikr eh, def ko tarbiya mille salaatul fatiha nga gis nit ki zikr ba benn moment bi yàlla dogal mu gëmmentu te amoon na yéene àggale mil yi waaye yàlla dogal mu gëmmentu gis nga bu dee kuy sàmm kurusam même bu tegee kurus ga dem dallu ji yàlla dina yabal benn malaayika bu ñëw bu ko àggaleel zikr ba ñëw bu ko àggaleel zikr ba fekk mil la daan def chaque jour yàlla dogal benn jour rekk mu def cinq gëmmentu daal di teg daal di tëdd mais sàmm bi mu sàmm kurus gi ak gëdd gi mu jox kurus ga tax na kurus googu dina nekk loo xam ni ku ne ci xeet yu sell yi dana ko mën a utiliser pour àggaleel ko këram yàlla yabalal ko malaayika bu ñëw àggaleel ko këram mu xëy dafa ni dese na 500 ndekete ci barke Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani yàlla yabal na leer gu ko ko àggaleel ci guddi gi te bu kurus ga sellul jëmmi jëmmi sell yooyu duñu ko laal looloo tax. kurus gi nga xam ni moom la taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani bi di utiliser point yi mooy point yi nga xam ni yu essentiel la pour mu basé wu ci fonk kurusam ba tax bis bu amatee njàkkare bu tàllalee loxoom ñaan la muy zikir mu zikir ko ca kurus ga ñaan ko ci barke kilifaam njàkkare jooju daal di dem pour loolu yëpp dikk fonk sa kurus daf ci doon farat waaye da ngay dem ba gis ni loolu dafa commencé changer bare na ñoo xam ni xamatuñu gëdd kurus ndax fu ñoo dem rek béréb bu ñoo toog rekk sànni kurus ga seen wet te arme la booy utiliser di jàmm yàlla te lu jëm ci yàlla rek fu sell lañ ko war a teg buñ koy jëlit fu sell lañ ko war a jële rawatina nag kurus goo xam ni dangay jël per yi di jàng benn par benn te per boo jàng muy représenté salaatu bi nga xam ni lu exceptionnel la ci biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa muy salaatul fatiha moo tax ñu ni kurus googu normalement kiy dem bay dallu ji sax war denc kurus ga war na ko teg ca sijaada bu set boo xam ni bu jógee mën na julli ci sijaada boobu mu mu teg ca kurusam lépp luy sobe mu moytu ko gis nga bu nit ki tolloo ci façon d'organisation boobu day dem ba bu jëlatee kurus ga lu mu ñaanati rekk loolu daal di nangu looloo tax Marc taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani dëgg la dinañ ko xàmme ci dinañ ko xàmme ci leer gi dégagé ci jëwam ak leer gi nga xam ni nekk na ci biir ruuxam ak leer gi nekk ci xolam waaye aussi war nañ ko xàmme ci kurus goo xam ni gu borom fonk la te di ko teg fu sell di ko jële fu sell ndax malaanu wazifa bii ñuy lal bu ñu demee ba biir euh, jàkka ja ñu toog wër ka ñuy fa mais gis nga malaan bi li muy set set li ñuy jël di ko teg ci malaan bi it di téye di wàññi par benn per war na set te kurus gu nekk mi ngi tegu ci kaw malaan bi kon kurus gu nekk war na fexe ba bu mu tegu foo xam ni bu tegoo ci malaan bi dina indi maanaa tilim tilim ga mu jële woon ca foofu indi ko ci malaan bi ci jàkka ji lu jar di bàyyi xel la lu jar di bàyyi xel la ndax léeg-léeg nga dégg ku wax ni ñaan na ba sonn la muy ñaan mënu ko gis fekk boo seetloo boo seetloo li ko retardé nekkul sax xëy na ci rooxam li ko retardé nekkul sax ci xolam li ko retardé mi ngi nekk ci la muy utiliser di ci jàng ay baat yu jëm ca yàlla ba noppi di ca ñaan ndax yàlla boo bëggee utiliser lu sellul da ca ñaan kooku dafay mujj doon problème ci xay ba dafay doon problème ci xay ba ndax diinal islaam lu mu am lépp lu sell la moo tax dañuy bëgg lu nit di utiliser muy dellu ci diine islaam mu doon lu sell te bu ñu nee taalibee taalibe Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif bi kurusam bokk na ca lañ koy ràññe war na moom sabab lu ba kurus googu ñu koy ràññe kurus gi nekk lu set kurus gi nekk lu mu fonk su boobaa lu mu ca jàngati loolu dana gën a gaawal fuyu daat yi wàcc ci moom dana gën a tax fuyu daat yi di wàcc ci moom ci nombre boo xam ni kenn dootu ko mën a calculer ndax lépp may sell yére ba mu sol sell na yaramam sell na xolam sell na ruuxam sell na sajaada ba mu toog sell na waaye kurus ga muy téeyit di tudd yàlla kurus ga sell na te salaatul fatiha looy utilise di ko ko jàng war nga sabab lu ci loolu ba loolu sell te kurus gi nag dafa ci dafa ci lu ci am solo looloo tax bu ñu dellusee ci teggin boobu da nga cay jàng ni mag ñi boo leen daan seetlu mësunu foowee seen kurus mag ñi boo leen daan seetlu da nga yëg ni mësuñu foowe seen kurus dinga yëg ni fu fu sell lañ koy teg buñ koy yëkkati fu sell lañ koy yëkkatee te ku leen ñaanloo loo it dara seen kurus ga la ñuy jël jàng ca benn per rek la nga leen di ñaanloo nga gis ko ndax kurus ga ci boppam dafa sell kurus gi ci boppam dafa sell looloo tax kurus du lu ñuy utilise rek jël di après sànni ko kurus lu ñuy fonk la mag ñi fonkoon nañu seen kurus ba ba daan nañu dem sax ba da ngay gis ku ci kurusam réer ñetti yoon rek boo moytuwul mu delluwaat ci sëriñam yeeslu ndax day xalaat mbaa cheikh nanguwul kurus ga mag ñi toll woon nañ foofu dem nañu ba ci ku ci kurusam réer mu wutati beneen mu réer mu wutati beneen mu réer xelam dootul dal boo moytuwul mu dem seeti sëriñam ni ko na ko yeesal te fekk na lu tax mu wax ko parce que xëy na gis na kurusam di réer mu ni kon mbaa cheikh nanguwul kurus ga te cheikh bu nangoo kurus ga mën na la dog ci tariqaam looloo tax li tariqa tijaniya renfermé ci côté mystique li mu renfermé ci côté bienfait waaye aussi li mu renfermer ci façon bi nga xam ni noonu la nit di taxawee pour mën a jaamu yàlla waaye pour mën a jëriñu ci tariqa bi benn bu ci ne da gis ni foo buntu boo ca fëgg sellte moo fa jiitu sellte ci wàllu yére benn la ci sellte ci wàllu yaram benn la ci sellte ci wàllu kurus ga ngay gàddu benn la ci sellte ci wàllu sijaada bi ngay toog beneen la ci waaye surtout nag sellte ci wàllu xol ak sellte ci wàllu ruux ndax sellte ci wàllu xol mooy tax nga mën a dund ànd ak stabilité sa xol bu yéenee ñëpp jàmm rekk nga noppalu moo tax damay mësa waxtaan ak benn góor gu mag mu ni ma dama jàppoon ni réew mi di senegal bokk na ki fi ëppoon jàmm ci dundam mu ni ma mooy alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh ma ni ko lu tax mu ni ma ndax xolam ñëpp la yéene jàmm moo tax mu noppalu te dëgg la te dëgg la sa ruux bu sellee mooy tax mooy tax sa liaison ak monde ba muy nekk liaison bu bu nu nangu nekk liaison bu nu garanti nekk lieson bu nangu nekk lieson bu ñu garanti te gis nga lu am solo la bare na taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani buy zikr buy zikr di jàng salaatul fatiha waaye it gént yonent bi tëkko wala gént Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani tëkko ba mu ciy sax jaaxle ba mu ciy jaaxle te war na ci jaaxle ndax kiy zikr salaatul fatiha bu ñu nangu di zikr jawharatul kamal bu ñu gaaranti bu mënul gis sax yonent bi ci gént mënul gis cheikh ci gént war na jaaxle nga gis léeg-léeg taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani yu ciy jaaxle te fekk na pourtant boo seetloo léeg-léeg liy indi seen ñàkk gént googu ñuy ñàkk gént yonent bi wala seen ñàkk gént googu ñuy ñàkk gént Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani boo gëstoo ba ci biir léeg lu tuutee koy indi détail bu tuutee koy indi te détail bi kat li ci ëpp boo moyetuwul ci léeg ñàkk sellte bi kurus gi war a sell mën na tax loolu bloqué seen vision ñàkk sellte gi kurus gi war a sell mën na tax loolu bloqué seen vision léeg aussi ñàkk sàmm bi ñuy ñàkk sàmm seen kurus ba fu leen neex rek ñu sànni ko fa loolu mën na bloquer seen vision waaye léeg-léeg itam mën na tegu ci ñàkk xorma bi ñuy ñàkk xormaal seen kurus ba nit ku nu gis rek jox ko seen kurus loolu it mën na bloquer seen vision loolu tax kurus lu jar di fonk la te yii yëpp léeg mu arrivé nit waaye du du xam nu mu koy résoudre du xam nu mu koy résoudre ndax question mystique la question mystique la moo tax boo seetloo tariqa tijaniya dafa jàngale dafa jàngale mode de waaye aussi dafa jàngale qualité yonent bi pour ku ci dund bu mënul incarner qualité yëpp aussi mu am yem ca incarner waaye aussi dafa jàngale sagesse mais surtout dafa jàngale volonté te mënatoo am nag ci àdduna lu ëpp volonté ndax lu ci ne volonté mooy base bi ki farluwul ci yàlla du mën a jaamu yàlla ki soppul yonent bi du mën a jëfandiku ci lumière yonent bi waaye ki gëmul Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani it du mën a jëriñu ci tariqa bi moo tax benn bu ci nekk ci yooyu fexe togg ko ba mu ñor ngay soogay jël wér du lu am solo la lu am solo la parce que dugg bi ngay dugg ci tariqa bi boo xamee dëgg-dëgg li tariqa bi di doo dootoo jaxle te tariqa tijaniya nag reflété lu dul image yu yonent bi ndax doo ca dëgg benn baat benn baat bu jëmul ci yàlla walla benn baat bu jëmul ci yonent bi baat boo ca dëgg muy wadifa ba muy laazim bi muy qadaratul juma bi bu jëmul ci yàlla rek ci yonent bi la jëm te réalité boobu lu am solo la waaye yëpp pour disciple bi jëriñu ci faw mu fexe ba kurus gi nga xam ni moom la yore di zikr mu fonk kurus ga kurus gi nga yor di zikr mooy sa arme mystique boo xëyee moom ngay laazime ñaan mu nangu boo xëyee moom ngay wazifa ñaan mu nangu bu xadaratul jumaa jotee moom ngay xadara ñaan mu nangu waaye aussi looy zikrati ci awraat moom ngay utiliser ñaan mu nangu kon war nga fexe ba kurus googu fonk gi nga fonk kaamilu alquran ba ñemewoo ko teg fu sellul fexeel ba fonk kurus googu ba fu sellul doo ko fa teg boo saxoo lii rek ngërëmal Mawlaay Cheikh Ahmadou Tidiane ñëw boo saxoo lii ngërëmal Mawlaay Cheikh Ahmadou Tidiane forcément mu ñëw parce que lu tax ngërëmal cheikh di ñëw mooy nit ki nit ki nekk na un bon disciple nekk na un bon disciple te il faut nag toujours boo duggee ci tariqa bi nga fexe ba nekk taalibee bu bu nu nangul waaye fexe aussi ba boobu duggee ci tariqa bi nga nekk taalibe buy refléter image yu guide bi te lu am solo la te pour refléter ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ku fonkoon kurusam la moo tax xaqiqa yi ngay dégg yépp ñu koy delloo ci kurusu Tijaan euh, téeméereelu per ba di représenter ismullahil azam bi ndax boo demee Makka ñu jox la kurus quatre-vingt-dix-neuf perle nga ciy gis ndax ñoom perle bu nekk dañ ko nas ci turu yàlla yiy dellu ci asmaullahil husna muy diggante allahu ba sabuur tariqa tijaniya bu amee téeméeri per fekk na téeméereelu per ba day refléter ismullahil azam bi di la centième nom d'Allah léegi nag réalité boobu di ci am yëpp ak juróomi seede ya nga xam ni benn bu ca nekk benn pilier essentiel la bu dëppoog xaqiqa benn pilier essentiel bu dëppoog xaqiqa léeg-léeg ñuy delloo ko ci islam léeg-léeg ñuy delloo ko ci xaqiqa te bu ci nekk am na wàllam am na cheyqu tarbiya yi benn bu nekk ak tekkeem waaw ku nekk rek am vision ba mu ca am ci seede bu nekk yooyu bu dajee ba nekk juróomi seede ya waaye aussi bu dajee ba nekk téeméeri perle ya li la war yow disciple bi mooy dellu fonk ko lu am solo la ndax boo jàppoon tey ni les cinq piliers de l'islam ni ko war a fonke ba yàlla mën na nangu sa nekk jullit noon nga war a fonke juróomi seede yi nekk ci kurusu tijaan bi ak téeméeri per yi ba Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijaan yi nangul la ni ni nekk nga taalibeem ndax li ñuy sàkku ci tariqa bi yëpp nag coono ga ca nit ña di dajak coono zikriyaak communion ya seen digganteeg seen borom nañuy fexe di communiquer ak yonent bi njàngale yi bu ci nekk ñun ñëpp yem lenn rek la ñuy wut mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani yi nangul nu sunu nekk taalibe parce que bu la ko nangulee rek la nga doon sàkku am nga ko te mooy ngëneel yi ñu wax ci tariqa bi lu ngëneel ya di rëy rëy benn bu ca nekk daa ca bénéficié waaye xaqiqa yi yi rëdd tariqa bi xaqiqa yi bu ca nekk benn bu ca nekk daa ca bénéficier wu te pour nga bénéficier wu ci foog maw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani nangul la sa nekk taalibe kon looloo tax nañu dellu ñu fonkaat kurus yi di ko teg fu sell di ko jële fu sell buñ koy gàddu di ko yóbbu it ñu koy yóbbu ci béréb yu sell te bañ loxo bu ñu gis rek euh, jox ko suñu kurus loo am solo la yal na yàlla yàgg ci barke Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijani di ñu nangul suñu nekk bi ñu nekk ci biir tariqa tijaniya ñaan moom Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijani it mu nangul ñu suñu nekk taalibe ci zahir nangul ñu ko ci baatin nangul ñu ko ci xayb ci lépp incha allah euh, ñu ànd ak moom abadan ba biir illiyin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu